asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Gambia nuyu naa képp ku seetaan Sahel Network TV seen xarit seen sopp seen doom de moo leen teewalaat ci biir kër gi bëgg a waxtaan ak yéen ci wàllum business profile programme bi di looy yëngu léegi damay am gan bu tedd ci biir kër gi dama koy bàyyi rek mu nuyoo ñu ngi koy Binta Kan Badjie so asalaamaaleykum Binta nuyu naa la. waaleykum salaam Aicha jërë ngeen jëf si dalal bi ngeen ma dalal tey si seen programme bi luy yëngu. Mhm. Ah, man la Binta Kane Badjie ni nga ko waxee mhm. um, CEO of Nopal Jeg Enterprise mhm. um, man nag um, fii laa juddoo Gambia fii fii laa yaroo fii laa màggee maa ngi demee school Ndaws comprehensive depuis nursery ba high school mhm. from foofu def naa yeneen certificate after loolu nekk am naa suma BSc in management and finance from the University of the Gambia. Um, uh, maa tamit by profession. Um, am naa nine years si banking industry bi waaye terewut tamit maa def um, business bi nii di business di Nopal Jake Enterprise. Mm-hmm. Nopal Jake moli li mu firndeel si suñ yeneen mbokk yi déglu. Mm-hmm. give the lady a break Nopal jigeni ñi daal waaw mm-hmm. te ku noppal jigéen rek Nopal nga askan bi waaw ne loolu nekk na lu am solo macha allah eh, lan moo andi turi noppal jekk foofu noonu nag moom business bi nekkul suma business idea li suma yaay eh, moko ko indi tour bi ni yagana iya na bima na def eh, business bi ni mm. eh, bima remember depuis bima dem school li yëpp ñu ngi def li ni so bi mu mu ne ma binta nopal jek la buga business bi mané ko nopal mm. jek mané ko ah noppal jéeg toroxal jànxay mu mm. ne ma ah mané ko ah parce que ñun ñoy def liggéey bi di waaye yow sa xarit yu sa jéeg yeen seen iya. morom yeen yéen enjoy mané ko kon jek noppal jéeg toroxal jànxay lool la <laughs> sax ba mu am yéen a ko daan tooñee yee noppal jeeg toroxal jànxay mm-hmm. waaye moom dafa génn àddina 2017 bi mu génnee àddina nag end of the year la woon mm-hmm. ma ne ah in 2018 ma jëlaat business bi ma ne lool du tere parce que yaaga nañ si yaaga na di ko def te xam naa liggéey bi mm-hmm. ma ne du tere tamit du ma bàyyi suma liggéey waaye ba tey dinaa continuer legacy parce que lii moom moo ko liggéey waaw so loolu moo tax am solo torop te yàlla ko yàlla yërëm amiin euh, bagage ngeen fa day jaay lu ci ëpp mm, wa nopal jek mom variétés yi bari nañ parce que ñun ci liñ day liggéey dugub la mboha ah, gerte te bir biir ah, loolu noonu xam nga dugub mom lu bari nga séré mëna jëlé so si dugub biñ biñ ah, dé defar dañ si dé am ciéré am si ciakri am si sanghal mhm. am si yenen na yenen nga gis gerte beeg euh, lii bi maalo bi soo ko boolee di nga am cuuraa gerte gerte bi si boppam soo ko defaree di nga si am dege nañ si day am granite cake mhm. nga am buy bi di nga am ah, dañ dee am sungufi buy dañ dee defar ñine jóob mooy ñu boolee dege bi yow dañ la ko dee booleel yépp sa dege bi ak lii bi buy bi euh, mhm. yow da ngaa pare rek nga def sa ndox mhm. nga nga yëngal comme ni for exemple sanxal bii nii bi two in one la parce que sanxal bii tey soo koo defar mun nga ko defar comme soko ko nga sousal ko dang ko di mun a ak domoda ak yenen façon ngi sauce soko paré tam mun nga ko defar la mhm. nga lekk ko ak ñine jóg wala lula la so wala yenen a yenen wa lool nekk na la am solo sha allah mhm. euh, yow léegi yow yan challenges nga nekk di face ci walum sa business bi um, right now uh, challenges yi bari nañ parce que su uh, competition mhm. benn la way comme uh, business bi ni right now low scale la te amna na yenen banhas has yo xamné ne uh, ñu ñu ko fi ubbi ñun ñong entrepreneurs yi ñu né ñu so len applyé mun ngeen am access to finance ak yoy non way du dé easy parce que man every time suma apply, applyé dañ ma dé wax ne ma ngi am gainful employ which means ma ngi liggéey so duñ ma mun jox xaalis mm-hmm. way right now so gisé may def ñaari yépp mm-hmm. pour man suma boppa yokuté la Mhm. parce que fooguma ne suma professionnel life am na dara pour defar business bi so su fekkee ne man dama soxla fonds pour euh, promote suma business bi I think ne am na right bi pour ma mun a am access to fonds yooyu noonu pour at least business bi boobu mu taxawal euh, mu taxaw boppam parce que fu mu nekk lii agriculture lii moo yóbbu dëkk bi kanam parce que tey suñoo jëndaat si suñ moroomi jigéen yi ñoo xam ne faamas lañ hmm. ñu koo jël di ko reproduce ñu koo jaayaat fii si biir dëkk bi ah, loolu koom-koom la koom-koom la dara génnul hmm. fii la ñoo jëndee suñ famas yi wu meen lifi ni suñ paree ñun suñ boppa ñu jël ko ñu processaat ko te hmm. cuuraa gerte ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp Gambia fii lii ñun lépp lu ñoo defar loo xam ne ñun suñ mbokki Gambien nii xam nañ ko te dañ ko dee jëfandikoo te amul dara loo xam ne dañ fa def préservatif loo xam ne daf laa lor. Uh-huh. te dugub moom weda am nga diabète sa doom mun naa lekk mun nga koo toogal. sànqal bi laa waa nga lekk ak nga wax comme products yi lan la mooy mun a def si yaramu nit ki. waaw dimbale ñu surtout ñun Gambians yi nga xam ne ñeme neen too much. <laughs> Ah. léegi yéen local products yi lan nag lan la mun a dimbale nit ñi si wàllu wér gu yaram. ñun de ñun suñ sañoon. ngeen dellu si waat si local products yi parce que foog naa boo xëyee sa suba. li nga jël di euh, jënda mbuuru bugga see jënda kon bi loolu yëpp ñaata la. nga jënda sa benn paquet yi euh, sa lifin sanxal nga tooga sa laax. nga def si sukkur. nga sotti si mais cuuraa gerte bi ruy bi. yooyu noonu yëpp yooyu yëpp a healthy amul dara caakiri bi soo amee sa soow fële. nga caakiri bi da ngay def si ndox bu tànga bi rek. nga livin mu sekki rek nga def eh, yëngal nga jox sa xale yi ñu lekka mhm. xanaa loolu kay moom doy na livin ah, parce que ñami ndox yi nii dafa <laughs> baax waaw amul dara loo xam ne daf laa lor mhm. waaw su surtout weeru koor kan bu nekk ni sa baxna pour hedda tamit. so jógee so jógee pour hedda wala wala dog. so dogee ruy mom ha nga bir bi bir bi dafa gëna ubé ko ruy mom dafa melni comme starter la. nga ko use as a starter. Mhm. so boobu boo nga bir bi dafa ubé nga mëna dor malo bi bu <laughs> baax. waaw gis baaji ko ndala lekk rek deug lo mëni nga mëna dor malo parce que ñom ci malo rek <laughs> ko eh, yow Binta eh, yow lan mo nekk sa secret si behind sa business bi fi parce que ya nga nekk young entrepreneur. Mhm. te yaa ngi ay jigéen yu bëri soo dama bëgg a xam secret bi pour ñi nga xamante ne tam ñu ngi bëgg a def si wàllum business yi nii tam ah, nu def. soo waaw soo xamee euh, li ngaa def da ko war a mun bugg a ko. waaw parce que li ngaa def soo ko munee nga bugg a ko boobu dafaa yomba. Mhm. te loo xamul tam nga laajte parce que ñun tey liggéey bi yombul. wante sant yàlla am na yeneen organisations yoo xam ne ñu ngay dem foofu noonu training ñu ñoo jàngal nu ñoo seelalee setal li ñoo lekka parce que lii si biir la moo dem mm-hmm. te xam nga loo xam ne dafaa dugg si biir aha kenn du ko génnee raxas ko soo lii dafaa dem straight lii moom is already lii moom ah, ready to cook la yow da teg sa ndox rek lépp looy def da jël rek nga yëgal soo ñu ngi gërëm ñoo ñoon tam ñoo xam ne ñu ngi suñ gannaaw di ñu jàppale ma ngi gërëm aw American moom mooy one of the woman boss moom tamit jàppale ñu won nañu ne nit ki looy defar si loo mun a yëngu na baax soo béppa price boo si teg price important waaye suñ xamee ne baax na seela na te fi ñu koo jëlee baax na rek mu ne ma dina jar gisuloo moo tax tur yi programme sax genn waaw soo mooy loolu waaw mooy mooy mooy luy yëngu su fekkee am nga am jom ne may yëngu nii yàlla dina ma si jàppale yàlla dina continuer noonu di la si dimbale ba pare yow yaa ngi nekk yaay yaa ngi nekk tamit jabar soo léegi yow tamit naka nga nekk di dundee loolu ak domestique si kër bi ak business <laughs> bi ak dem si banque bi tamit loolu naka nga ko nekk di dundee ah alhamdulilah li ma man moom nit ñu bari dañ ma ko dee laajte noo ko munee ma ne leen ah foog naa time management. Mm-hmm. parce que Monday to Friday moom dama dee make sure jox naa banque bi waalaam. wante loolu su weesoo. Mm-hmm. dama dee wax ne loolu rek nekkul dunda. xëy dem si banque bi amuloo dara leneen loo def waaye lii lu mbon bon sant yàlla. Mm-hmm. mun naa ko parce que yàgg na. parce que ñun depuis bi ñoo nekk xale su maye daal liggéey bi ñun ñëpp ñun ñun ñii ñu ñoo ko daan def soo xam ne naka la waaw soo ah, dafa yomba daal waaw waaw noppal waaw noppal jeeg <laughs> te foog naa ne pour eh. ñu war a dimbale suñ moromi jigéen yi parce que lii ñëpp xam ne lii liggéey bi dafa métti mhm. bala ngaa dem jënd dugub bi ba ñëw soxa ko wala def si yaag fele ne le kii naka la wol bi nga nga am si araw am si leneen na leneen dafa métti process bi dafa métti soo ñun dañ jël yëpp ñu def ko in one ñu génne yu métti yëpp ñu package-al la ko lii so which means ne xam nga walatuloo dematuloo si machine wala defatuloo yu métti so ñun yomba na nañ ko suñ moroomi jigéen yi te ñun looloo tax ñu jóg mm-hmm. moo tax ñu ne noppal jeeg pour noppal jigéen yi te foog naa ne jigéen ñi suñ noppa noppaloo dinañ am enough time pour def yeneen a yeneen si biir kër yi parce que ku wàcca bugg a lekka lii yu baax yi waaye yaa ngi ko am already ñu la ko prepackageal mhm. so yoo xam nga ne yow kon mentally mhm. yaa ngi ok te waaw yu bëri wàcca na la parce que mun ngaa dem sa liggéey nga wàcca nga ñëw nga fekk ko fa nga defar sa sa sa doom yi ñëpp ngeen mhm. toog ngeen lekka waaw so loolu la daal euh, léegi yow su ma bëggoon jënd sa product si nii naka lay def waaw da ngeen am place fenn fu ngeen nekk wala sa kër nga nekk wala da nga am Facebook page wala number téléphone ngay call. wala naka ngeen ko dee defee. ok right now moom um, amaaguma bitik. Mhm. Uh, we are working from home si kër bi lañ dee waaye ku bugga tamit. Mhm. dang dee call parce que suñ package yi suñ number yi dafa dee nekk. 399 0511. 222 0078. ñu ngi dëkk Mandiaykunda West Side Junction ñu ngi am tamit Facebook page Twitter ak um, um, Instagram um, su pasee loolu tamit ñu ngi am yeneen bitik yoo xam ne ñu jox contract lu mel ni Innovarex Global Health soo demee foofu di nga fa fekk suñ product si xéewal bitik tamit supermarket soo fa demee di nga fa fekk suñ product yi Atlas bi nekk kóolooli ak Baadaala tamit suñ product si ñu fa. macha allah loolu mm. nekk na lu am solo. Euh, léegi yow soo waree xelal sa moromi jigéen ñi mm. ak jànq yi nga xamante ne tam ñu ngi bëgg a engage in business mm. waaye xamul na ñuy def lan ngeen leen a jox as an as an advice moom dama la nit ki moom soo amee idea business idea companies yi li fi ah, am na léegi ñu bari ñu jóg ñoo xam ne ñu ngi fi maasi startup incubator gars yi yëpp ñu ngi fi soo demee da nga yóbbu sa business idea nañ la dimbali nga go through training boo xam ne di nga mun a jël sa idea bi mu nekka loo xam ne taxaw na. on mm-hmm. sanga mm-hmm. su fekkee dañ laa dimbali si. sa business plan o uh, lépp loo xam ne soxla nga ko daal soo demee li yi nii banxaas yi bari na ñoo xam ne jóg nañ léegi pour dimbali ñu ñun ndaw yi ñoo xam ne jóg nañ si yëfi business waaw soo amul soo amul time sax pour di dem bunta ba bunta pour la ca internet bank bi sax internet bank nga google how do you do naka nga dee defaree naka google moom la ko laajte moom dina la ko wax waaw <laughs> léegi dama doon laajte si wàllum covid 19 bi nii hmm. léegi ku bëggoon seen product ndax Ah, ñu leen dee defal delivery wala. waaw ku bu ah, ku bugg product bi moom da nga ko dee mun a am. waaw dañ lay def delivery ñun dañ am taxi boo xam ne ku bugg dañ la dee deliver waaw ñu yóbbu la ba sa bunti kër wala sa bitik waaw ko bugg ñu stay home. <laughs> waaw stay home waaw stay home stay safe so bugguñ kenn génn di sonal boppam wante Covid 19 bi tamit indi nañu ay jafe-jafe. Mhm. su ñëwee suñ supplier parce que ñun suñ bagage yi um, most of suñ raw material si def bi la day jógee mhm. CRR ba URR soo mhm. xam nga luñ ne stay at home toog bi ni ñàkk moto ba yooyu noonu pour mhm. jot suñu raw material si um, am nañ si tuuti jafe-jafe ba pare customers yi tamit comme suñ um, uh, ñi ñu dee jaayal tamit amaatuñ customers yooyu noonu soo suñ suppliers yi tamit mu ngi wàññeeku so which means ne business mu ngi xaw a dool tuuti waaye sant yàlla ba tey waaw. Euh, laataa ñuy tàggatoo dama lay laaj comme lan mooy sa last words loo xamante ne di nga ko mën a jox ñi lay seetaan. waaw maa ngi wax ñi ma seetaan um, jërë ngeen jëf si seetaan waaye maa ngi leen maa ngi jërëjëfal tamit waa Sahel Network mm-hmm. um, parce que tey lii um, wone na ne. am na ñoo xam ne ñu ngi toog fii pour promote ñu ñun young entrepreneurs yi waaw loolu moom am na am na am na solo bu baax. di mm-hmm. jaajëfal Mr Bachi Mr and Mrs Bachili. Mm-hmm. di la jaajëfal yow mi sa boppa yow mi toog a man mm-hmm. am jot bi di promote nopal jeeg ak product sami wone ñu soo loolu moom maa ngi maa ngi jaajëfal ñëpp daal maa ngi jaajëfal ñëpp ak ñi seetaan customers yi ñi tax ba business bi dem su ah, suma family members yi suma jëkkër suma doom yi mhm. parce que ah, dëgg la ñoom foog naa si seen time laa dee gën a sàcca mhm. pour muna def yi ma def ni yëpp waaw waaye wante dañ ma dee understand léegi léegi suma doom bu jigéen hmm? bi moom moo gën a ndaw two years la am suma ma nekkee suma mobile def suma social media dafa ñëw mu xëcca suma phone mu teg ko <laughs> mu tëdda suma kaw waaw waaw waaw yombu nag wante hmm. waaw ma leen naa jaajëfal yéen ñëpp ñiy seetaan jërë ngeen jëf bu baax a baax macha loolu nekk na lu am solo waaye balaa may tàggatoo dafa am lu may faral di teg si table. Ah. da ñuy wéyal wala nga lébal ñu balaa ñuy def def si benn <laughs> def si benn boo booy jël wala bi ah xam naa ne baat bi neexul wooy moom. waaw déedéet xam nga man sax suma baat bi neexul waaye dañuy xam nga rek réeloo ñuy seetaan ak man ba parce que dama bëgg a xam naa soo loolu foog ñu def ko balaa ñuy def. <laughs> Euh, est-ce que ah kon hmm? <laughs> na fi. <laughs> ما يدق لا عشان استلم عليك من قال لي ها بيبا ma lépp sax xale yaa ngi seetaan dañ ma boole de dañ dañ leen di lébal kon loo ma lébal man tamit ma kay nañ ko bàyyi ba beneen yoon rek fekk su ma ñëwee ma privé yow bii daf ma daf kaw. kon mu di leen mi nga a doon Network TV bu leen subscribe like and then. notification bell. Thank you so much Aisha Fitogon, send programming lo yengo. Bye bye, the next edition.